मुझसे दूतों को बाय الحمد لله الذي أغناني وأعزني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 asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنعمة ربك mbokki seetaankat yi Imran TV maa ngi leen di nuyu bu baax am mbég mu rëy del si janoo ak ci sunu wopp wi nuy wax gànjarug wolof di am mbég mu réy ci ànd bi ngeen di ànd ak nun di indi seeni njañse ak wax seeni xalaat ak ñi nga xam ni ñoo ngi ñuy jokk ci sunu limatug bopp dinu wax seenu cant ak seenu mbégte waaye mboolem ñi nga xam ni ñu ngi ñuy yónnee ay laaj di wax ñu àddu àddu ci yenn léebu yi ak yenn baataan yi ñooñu ñëpp noo ngi gis seeni laaj noo ngi leen di jaajëfal te ndeem soob na yàlla laaj buñ ci jot rek dana nu ko indi fii waxtaan ci ndeem soob na yàlla xanaa na ma ko daan defee rek di jaajëfal mbokk yi nga xam ni dañoo baaxoo di ànd ak man ku ci mel ni soxna na bu sàll maa ngi koy jaajëfal bu baax soxna Khady Cissé bëgg cere maa ngi koy jaajëfal te di ko masaw moom it ci koor gi naka noonu Mouhamadou Lamine Cissé moom itam xam naa ni moom Cissé Cissé yi daal noo ngi noonu xaw ma nu ñu def ci koor gi daal ñu ngi noonu rek waaye Serigne Abdoul Ahad Diop maa ngi lay jaajëfalee bu baax gis naa njëñ say sëñ Moustapha Lo Kocc sama sëriñ daara moom mi nga xam ne ca moom laa jàngee jàngu benn waaye moo jàngalit binduy jàngu ñett maa ngi koy jaajëfal bu baax noonu laay nuyoo Baye Diassé moom mi nga xam ne sax cax bi ñu fi bàyyi moo ko tontu Baye Diassé maa ngi lay nuyu waaye sëriñ wala soxna Aysatu Jaabi walla Jaab ak Daara Wakana xàqan TV Euh, ak kippaangu jàng wolof ñeent ak waa euh, jàng mbindum wolof ci njiital sëriñ Moustapha Lo waaye di nuyu sëñ Touré ak sëriñ Khalil euh, Mbacke sëriñ Abo Mbacke sëriñ Cheikh di njiital mbootaay gi di wax waaye sëriñ Baara Gueye bu saabal ak mboole mbokki saa wolof yi fu ñu mën a nekk maa ngi leen di maa ngi leen di bégee bu baax a baax mbokk xam ngeen ni bàyyi woon naa fi aw cax ma waxoon ni ñaari baay dañu ma gane si ànd ak ñaari doom ñaari baay ñoo ma gane si ak ñaari doom ma séddale leen ñetti pom ku nekk amub doom loolu nag baay jaase tontu na ko euh, maam la ak baay ak sëtam mi ngi mel ni man ma àndoon ak sama baay ak sama doom sama baay baay la mën ni baay laa kon ñaari baay lañu waaye mën mi doom laa ci sama baay sama doomit sama doom la muy ñaari doom foofu kon ñaari baay ñoo ànd ak ñaari doom waaye boo boolee seenub lim ñett la lay jox xam naa ni daan nañ ca cax sax xar jiitu xar topp ca xar topp seen ginnaaw jiital ñaari xar ñaata xar la loolu xam naa sax du ñàkk dama ko fi bàyyi rek ndax du ñàkk bis ma indi ko kon mbokk yi ngi noonu xanaa ñu dikki rek leeral yenn waat yi nga xam ni dañ ñuy faral di wax ñu àddu ci indi ci ay leeral tey ñu indi baat bi ñuy wax dañ kumpa dañ kumpa dañu koy wax ba mu siiw waaye nag du dëgg-dëggi baat bi baat bi du dañ kumpa waaye bañ bañ kumpa la xam nga dañ kumpa moom kenn xamut lu mu doon waaye bañ lañuy wax bañ kumpa koo xam ni daa bañ dara ump ko lu xew rek dana bëgg a xam lu mu doon ku duggoon ci am néegam tëju sax balaa am jàmm daa xam lu muy def ci néeg bi soo ko tàggoon ne ko ma dem barab sàngam te ñëw faw mu laaj la foo foo jëm ak looy doxeek nàngam nàngam kooku la wax ko bañ kumpa koo xam ne bu nekkee ci biir kër gi lu mu dégg ci mbedd mi rek daa di samp xelam daw dem xooli kooku mooy ku bañ kumpa waaye kenn du wax dañ kumpa kon baat boobu defe naa ni leer na baneen bi ci des mooy li ñuy wax kemtalaayu kàttan loolu waxoon naa ci sax waaye xëy na am na ñoo xam ni it jataay yan ciy wax da leen di rëcc ba tax na léeg-léeg ñu indiwaat laaj bi di ñu ko laaj kemtalaayu kàttan waxoon naa ni dañ koy wax rek waaye baat bi dëgg du kemtalaayu kàttan waaye man mënees na ko wax ci ñaari anam mënees naa wax kem kàttan rek yem ci sama kem kàttan walla nga ne sama kem tolluwaayu kàttan baat boobu sax moom la ñu yàq di wax kem talaayu kàttan waaye kem tolluwaayu kàttan baneen bi ci des mooy faram fàcce faram fàcce moom it baat la boo xam ni siiw na ñu baree bari di ko wax bu ngeen taaxeerloo ñu dikk ak yéen ci faram fàcce gi wala diwee faram fàcce xibaari nàngam yi waaye faram fàcce moom boo ko doon seet munoo gis gongiku waayam kon baat bi dëgg mooy firi fecc firi fecc firi nag xam ngeen ni lu lu lu lu lu léttu loo xam ne dafa dafa dëxëñu moom lañuy firi leeral ko fecc tamit lu fasu lañuy fecc kon mooy li ma wax nii tënk ko bu ngeen taaxeerloo tuuti rek dinaa ko gën a yaatal gën koo leeral muy tolloog firi fecc kon loolu lu am solo la nu dikkaat tey ci léebuy wolof yi déegub jànj du tee góob déegub jànj du tee góob wala déegub jaan déegub jànj du la teree góob lan la ci wolof jublu mooy lépp loo xam ni romb ko du la wàññi dara te soo ko laalee mën na laa jural lor bàyyi ko fa te dem waaye ma dikk leeralal leen lan mooy janj ak lan mooy déegub jànj xam ngeen ni janj bu nekkee ci sa tool da euh, day day dëgër ba nga xam ni ab gopp du ko mën a bay machine it du mën a jaar ci kawam soo ko jiimee bay danga nga ca jële coono bu tar te dara du ca sax dett mber moom amul genn gàncax goo xam ni day sax ci kawam kon boo ko jiimee bay ab coono dana la ca fekk te doo ca jële gàncax waaye bàyyi ga nga fay bàyyi jëmmi jànj bi te bay la ko wër loolee du la tee am dugub loolu tax wolof ne déegub jànj du tee góob kon daal nit ku mu man di doon lépp loo xam ne ñépp romb nañ ko fa te yow boo ko fa rombee du la wàññi dara te boo ko laalee mën na laa jural loraange loole romb ko te jàll bët bu set nag ma wax ko aw léebu daa yaatu aw léebu doo jël sa déggiin gi nga ci am rek keneen ku wax lu wuuteeg loola nga ne déedéet ndax léebu daa yaatu joxe naa ci niral ci ne nit ki nga xam ni tey daa nekk ci ab ja daa nekk ci ab ja di jaay am na koo xam ni ñëpp xam nañ ak naqari deretam ak mën a tooñam ci jabi nga xam ni moom bu xësee lal ku ko lalliloo jaral na ko rayante jaral na ko xeex jaral na ko lépp mu ñëw lal sa buntu buntu barab bi ngay liggéeyee yow kooku bàyyi ga nga ko bàyyi mu mu lal ba wàcc jot mu dem mën na laa bañ a tee jaay waaye boo ko nee nag foo mën a jaar da nga fi jóge jàppante mën na caa juddoo goo xam ne lor mën na la caa fekk kon loolu it kenn mënu koo dàq ci tekkiin yi nga xam ne déegub jànj du tee góob am na ko ndax ci tënk mooy romb loo xam ni rek bàyyi ga nga ko fay bàyyi du la jural loraange waaye laal ga koy laal nag mën na laa jural loraange waaw te bàyyi ko fa moom du la du la du la du la du la tee jariñu te du la jural loraange kon loola bàyyi ko fa te nit noonu lay mel nit du def lépp loo xam ni nit ñi ñemewuñ koo wax moo koy wax nit ku nitee du def loo xam ni nit ñi ñimewuñ koo def rek yaa koy def bu nit ñi bëggee wax dara sax ñu ne xaar leen ba diw ñëw nit ku nitee du ko def nit ku nekk daa am lu muy desal kon déegub jànj ji du tee góob léebu wu ci topp di léebu wu siiw waaye di léebu wu am solo muy lu waay def boppam loolu nga xam ni sax des koy mën a dëppaleeg ayab alquran bi di wax ni man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa aleyha képp koo xam ni def nga lu baax sa bopp nga ko defal ku ñaawal tamit defu safaan ci sa kaw rek lay dalaat kon lu waay def boppam mbokk yi ñu ngi ci weeru koor weeru yërmande la weeru dimbalante la lépp lu ci waay dimbalee nit na xam ni boppam la ko defal képp koo xam ne yaa ngi defu ñaaw ñaawteef yaa ngi yàq deru nit ñi yaa ngi sol saw daal di jaxase ay nit yaa ngi sol saw daal di dëddale ay nit na nga xam ni la ngay def ci sa kaw rekk lay këppu ndax wolof nee na dereeti bopp du mooy mbaggum boroom dereeti bopp du mooy mbaggum boroom waxaat ko ci geneen anam wax ni dereeti téegal du mooy luppub boroom lool lépp di xeeti waxiin yu wolof di wax ngir di ci dànkaafu aji jëf ji di ko xamal ni lépp loo jëf moo xam lu baax la walab safaan na la wóor ni sa bopp rekk nga ko nga ko defal waaye waneen léebu mu ne àdduna njoowaanug golo la garab gu ne lay wékku àdduna njoowaanug golo la garab gu ne lay wékku kon su su fekkee ni daa wékku ci sa garab bu mu defe ni bu mu tax nga defe ni yow sa garab gii daal moo gën mboolem garab yi ci àll bi ndax ci garab la ko wékkee woon wékk ko ci sa garab te dina ko wékkeewaat ci sa garab wékkaat ko ci geneen garab loolu mooy lan àdduna loo fi am njëkkoo ko am am na ku la ko njëkk a am tayit lu mën di doon yàgg-yàgg dana jóge ci say yoxo dem ci yeneen yoxo su dee alal la benn nga xëy ñàkk wala nga faatu rek bu dee nguur la benn nga xëy wàcc wala nga xëy faatu waaye lépp loo xam ne ci àddina la la dabe ci àdduna la la dabe ndax kenn ku ne bi ngay juddu ëndaale woo fi dara booy demit doo yóbbaale dara kon loo fi am dalaa dab dalaa dab kon nag li la dab ci biir ci biir àdduna jamono ji ngay dund ci biir àdduna lu la fi dab moo xam ndombal tànk la moo xam alal la moo xam lu mu mën a doon bu mu tax nga jël loolee di ko xeexe doomu aadama yi wala nga leen di wan ni man nii laa toll walla nii laa mel waaye loola na ko jël sante ko sa boroom mi nga xam ni am na ñum ko xañ te ñu gën la fuuf mu jox la ko waaye na nga gaaw posewu ci jëf ci jëf ju baax waaye dimbali ci ña nga ca war a dimbali ngir bu ëllëgee bu génnee ci say yoxo it ñu xam ne ah diw day gàcca moom day jamono ya nga xam ni day ma ngay man kum waroon a dimbali dimbali na la lii nag di lu am solo loo xam ne tey moom laa leen indiloon di ay léebu ak ay waat yoo xam ni dama ko doon leeral xam naa ne ci sunu jataay bii di ñëw dana nu gën yaatal dana nu gën a dugg ci nettali yi ak léebu yi waajalal waajaloon nañu sax ab nettali boo xam ni dafa jëm ci dimbalante ak ci weeru koor gi nga xam ni ci lañu nekk waaye waxtu wi du nu may ñu nettali ko xam naa dama leen koy dencal bu ñu dundee ba àllarba ji del si ndeem soob na yàlla su ko defee danaa leen ëndil nettali boobi mbokk yi kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di àndu ànd ak nun ak safoo gi ngeen safoo làkk wi saa su ne yéen a ngi ciy gëstu am na ñoo xam ni ñu ngi may jokk ci sama limatug bopp naan ma baat sàngam baat sàngam xeeti léebu yeeg cax yi ba démb rek ci paango jàng wolof ñeent maa nga fa doon amal wëpp woo xam ne ci loolu la doon wax mboolem saa wolof yi ànd ci ak nun di ci fe di ci fësal seen bégte loolee nag di dalal suñum xel di wane ni daal nit ñi am na ci ñoo xam ni seenu làkk ñor na leen te noo ñoo ngi koy gëstu mbokk yi téere bii ma yor di téere wolof ak isibtu gu njëkk ga téere la boo xam ne bu am solo la boo xam ni wax na lu yaatoo yaatu ci cosaanul wolof fa wolof jóge fa mu jaar ba ni mu duggee Sénégal waaye wax na ci cosaani loy yi nga xam ne ci lañuy bindee wolof ndax am na ku ma doon laaj ci cosaanu loyi wolof yi ndax ñun loy yi ñuy bindee dañu ko àbbe ci euh, france yi wala suñu layu bopp la loolu ndem soob na yàlla dinañ ci indiwaat waneen waxtaan wu gën a yaatu ndeem soob na yàlla xam naa mbokk yi dama leen di bàyyee caxu bis bi te ñu tàggatoo ba baneen yoon ndem soob na yàlla mbokk yi caxu bis bi tey faaw yombal ko sama lu njëkk aw sant la sama ñaareel képp ku ñuy dàq rekk bëgg nga koo def sama ñetteel nag kenn bëgg ko soo ko boolee mu jox la loo xam ni dees na ko wax jigéen duma leeral nag bu baax ndax am na lool boo ko ca leeralee rek cax wi day neex a tekki lool moo tax nag ma daal di daat ne mu jox la loo xam ne dees na ko wax jigéen rek yem fa ndax soo ca génnee xuus rek ñépp dañuy daal di nànd cax wi kon sama lu njëkk aw sant la sama ñaareel ku ñuy dàq rek bëgg nga koo def sama ñetteel kenn bëgg koo def soo ko boolee mu jox la loo xam ni dees na ko wax jigéen mbokk yi loolu lumu jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen doon ànd ak nun maamoon mbég mu rëy ci doon janoog yéen ci sunu wëpp wii di Gandiol Wolof di leen dig daje beneen yoon ci weneen wëpp ndeem soob na yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf Mustafa raw nga ñiile